dali nag jàmm ñu ànd xëy ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien sud quotidien les échos source a las yéenekaay yëpp xëy dikk di ñu wax naan ñu Sénégal am na juróomi kaa yu yees yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamalaan ñu nikk démb la ñu ko ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram gi ci réew mi daal di xamal di Abdoulaye Diouf Sarr ñett ñi bitim la ñu jóge ñaar ñi nag moodu moodu ba moo leen wàll journal bi nee na Sénégal jamono ji maanaam fanweer ak ñeent ci ay nit amee nañu fi jàngoroy coronavirus boo si toftalee ñaar ñi nga xamante ni fajoon nañu leen maanaam fanweer ak juróom benn Sénégal jamono ji ñoo ngi si njàqare ak tiis waaye nag jàngoroy coronavirus ji ak ni nga xam ne moom lay yokkee ci àdduna bi loole nag jaaxal nañu baree baree bare maanaam jixi jaaxa daan na cay am ba fu ko waaye nat daan na kay passé journal bii di ko Sud Quotidien mu ñu xamal naa ñu bu ñu waxantee dëgg maanaam àdduna bi moo tiit yéen a kaay gi nee na nag li nga xamante ni moo am ba des ci réewum Sénégal matukaay yi war nañu ko gën a yokk yéen a kaay gi moom ti mu xëy di ñu xamal naa ñu nag bëri woon na ay nit ñoo xamante ni njort nañ ne ñooñee amee nañu jàngoro jàngoroy coronavirus ji waaye bi ñu leen càmbare biir ak biti xam nañ ne ñooñee wu ñu jàngoro ji moo xam ñu ñu doon càmbar ñu dëkk Saint-Louis moo xam Kaffrine moo xam Cap Skirring yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal naan ñu waa OMS organisation mondiale de la santé ñoom nag ñoo ngi wax africain yi ñu yeewu te bàyyi seen nelaw yi maanaam nag te fagaru xam na nag li nga xam ne moo nekk ci kanam di ñëw maanaam musiba ma ba kumbala gu rëy goo xamante ni bu askanu Afrique yeewul maanaam nag giraawalee ko njombe gu rëy dana leen dugg maanaam sol ndox la ñuy def quotidien mu ñu xamal lan ñu en tout cas lii des dal mooy wolof njaay moo ko wax nee xob bi ku bala ngay lakkale loole nag moo tax imam ak ulema yu ñoom daal nee ñu jullik mbooloo yi maanaam ajuma yi ñu daal di kay dakkal yéen a kaay gi di suddu mu ñu xamal lan waa masalikul jinaan ci ndakaaru ñoom nee nañu seen jullik ajuma maanaam duñu ko dakkal tuuba tamit noonee la ñu doxee yéen a kaay gi mu ñu xamal lan ñu wàtti waa woon ñoom nag daal nañu suspendre li nga xam ne mooy ak xadra yi imam bii di imam irandaw ak na nag wax ñu dakkal jullik ajuma réewum Sénégal maanaam loolee scandale la loolee njombe la loolee girawaali la yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal naa tout cas li am ba des daal luy jot jot na mobilisation moo war a am journal bi délibération mu ñuy xamal naa ñu est-ce xam ngeen ne moodu moodu bi nga xam ne moo dugal jàngoroy coronavirus ji ci Touba wàll na moom kese rek dong lu toll si ñaar fukk ci ay nit yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu nag ñi nga xam ne ñooy waa Burkina Faso am nañu ab dese ci lu jëm ci mbirum jàngoroy coronavirus ji maanaam mooy premier vice présidente assemblée nationale ba surnal groupe promo consulting bi mu ñu xamal naan ñu jàngoroy coronavirus ji maanaam ma ngi lëmbaaji réew mi Italie ndax nag démb démb démb démb lu toll si ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay nit ñàkk nañ fa seen bakkan journal bi nee na ministre bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi di maître Omar Youm la mu xamle nee na nag li nga xam ne moo jëm ci wàllum surcharge maanaam danañu ko dakkal ni mu gën a gaawee dàqul sax mu jël ay policier maanaam ay takk der dugal leen ci tataaye ngir nag ñu daal di wàññi surcharge gi journal mu ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall moom nag daal nay wax ministre mi ministre mi kenn ku nekk daal di cotiser lu toll ci benn ci ay millions yéen kaay gi di source am mu ñu xamal laa ñu Macky Sall ji ma ngi màjjal yéen kaay gi di waa Grand Place mu ñu xamal laa ñu yi ñoom nag d'accord nañ daal maanaam lu toll ci fukki junni jàpp lu toll si ñetti téeméer ci ay junni ñoom pare nañ ngir cotiser ko waaye nag ñi nga xam na ñooy ministres yi benn million la ñu leen wax yéen kaay gi di réew mi ñi nga xam ne nag ñooy waa Chine jamono ji nag pare nañ ngir jàppale réewum Sénégal yéen kaay gi di sud ko di commencé nañ jàppandal gi jëmale ko ci réewum Sénégal yéen a kaay groupe Promo Consulting bi mu ñu xamal ñu jamono ne hôtel la ci réew mi yéen a maanaam ma ngi ci ab état d'urgence état d'urgence fi la Sénégal toll enquête yéen a kaay mu ñu xamal ñu bëri na ay sénégalais yoo xam ne maanaam bitim réew la jóge woon jaar ci yoonu suuf fii jamono ji nag dañoo tëgg témbe ci deseeru Mauritanie bi ndax dañoo tëj frontière ya toll nañ ci fukk ak juróom-ñeent ci ay sénégalais yoo xam ne jamono ji mënuñoo dem mënuñoo dikk ñoo ngi ci ay jafe-jafe ñoo ngi ci àll Mauritanie ba yéen kaay gi mu ñu xamal ñu ñi nga xam ne ñoo jiite kaso yi suspendre nañ lépp loo xamante ni jëm na ci ay visite yéen kaay gi de Le Quotidien mu ñu xamal ñu Sénégal maanaam fi mu jëm baaxul ñëpp nag toog seeni kër toog kenn bañ a génn wala nag dem doxi farataas yéen kaay gi de La Témoin mu ñu xamal ñu commissaire central bawoon di Arona Sy mi nga xamante ni ñëpp ràññee woon nañ ko ci atum 2012 ba nga xam ne Abdoulaye Wade waxoon na ne day def ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal mu nga xam ne ñooy société civile bi doon jàmmarloo ak opposition bi waa m Y'en a marre Arona Sy moomee maanaam dellu si wànn ci réew mi Macky Sall fal na ko niki démb def ko directeur de l'inspection des services de sécurité ci ministère bi ñu dénk kaaraange réew mi yéen a kaay gi da la témoin xëy samp ab laaj ne Arona mi nga xam ne ñëpp xamoon nañ taxawaayam 2012 Macky Sall da koo indi ngir nag waajal ab ñetteelu mandat ci bopp réewum Sénégal